asalaamaaleykum euh, man la Lamine njaay maa ngi leen di nuyu bu baax ku nekk sa tour ak sa sant euh, comme d'habitude di leen remercier bu baax a baax ci retour yu may am yi ci vidéo yu may def yi euh, tey moom mooy suñu troisième vidéo comme ngeen xamee léegi vlog laa ko tuddee kon tey mooy suñu troisième vlog ñu bëgg ma bëggoon tey ñu def le point du mois de mars Euh, depuis un mois tey commencé nañ am ay statistique commencé nañ xam chaque semaine ñaata nit ñoom ñoo am coronavirus Sénégal ak ñaata nit ñoo wér kon léegi mun nañ def benn premier point te yaakaar naa def un point tous les mois léegi ci pour suñu point bi euh, ngeen mun comprendre fan laa bëgg jëm dem leen di njëkk bàyyi ak euh, professeur Seydi Euh, ci benn vidéo bu intéressante bu baax a baax euh, bu mu def vidéo bi dinaa leen jox lien bi ci suuf pour ngeen seetaan ko pour ngeen seetaan vidéo bu yëpp mais benn extra rek laa leen si si jox ngir ñu eggali suñu waxtaan bi. est-ce que Sénégal fu mu toll ni am na ay cas grave. am nañ ko mais du ma wax cas grave parce que man si sama euh, discours cas grave dama koy jël rek pour cas yi nga xam ne dafa nécessité ñu utiliser machine pour mu nooy. am nañ cas yoo xam ne dañu soxla par exemple ñu defal leen oxygène démb rek dalal jàmm am na benn cas bu ma fa fekk boo xam ne dafa soxla ñu defal ko oxygène dañ koy defal oxygène di ko supé su soxlaa nag ñu defal ko machine pour mu nooy ñu door ko defal machine donc cas di soxla machine pour nooy moom amaguñ ko waaye cas yooyu nag lañu war a encore gën a bàyyi xel parce que ñooñu moom seen faatu dafa gaaw soo leen fajul presque ñoom ñëpp ñooy faatu que pour cent daanaka nga war a xalaat soo leen fajee it soo moytul 50 pour cent sa danañ si faatu kon ñoom lañ war a gën a bàyyi xel fi mu ne nii Europe nekk nañ ak États-Unis di tànn ndax kii la ñu jël wala kële la ñu jël parce que amatuñ machine yu doy donc nit ñaa ngi faatu di faatu di faatu parce que machine yu doyul donc su machine doyul foofu ñun mun nañ am machine yu doy nuñ ko am moo tax nag ñu xam ne mbir bi ci prévention bi la nekk nañ fexe kaay bañ a bëri pour l'instant ñu ngi gérer situation comme ni ma ko waxee tant que dépassé wu ñenn kaay incha allah ñun dinañ ko gérer nu mu waree waaye am na fu muy defaat dina ëpp suñu capacité du ñu am fu ñu leen def wala suñu amee fu ñu leen def jumtuwaay yu war pour ñu traiter leen duñ ko am wala garab yi mun na manqué wala leneen ak leneen problème mun na am donc bu ñu xool rek ne amul décès ba léegi ñu ne non kon feebar bi amul benn gravité déedéet tant que kaay yi bëriwul amul lu ñuy tiit comme lu ma doon wax. mais comme lu ma doon wax su gënee bëri nit ñu war nañ tiit bu baax te fi ñu toll ni tiit bu rëy jot na parce que cas communautaire yi mun nañ fi jékki-jékki am 1000 si benn bés loolu yëpp loo am la te lu ñu gis la ñoo xam dañuy jékki-jékki benn jour cas multiplié par 10 te nga xam ñoom duñ dund comme ñu ñuy dundee waaw ñoom dañ naa feebar benn nit la wala ba ñaari nit ñeneen ñi nee na mun na nekk juróom benn nit ba ba juróom-ñeenti nit mais fii ñun am nañ benn nit bu wàll ñaar fukki nit ak juróom. kon boog nañ xeex feebar bi dès maintenant ku ko doyadal rek xamal ne musiba bu rëy mu ngi xaar réew mi. voilà comme ni ngeen ko déggee léegi ci professeur Seydi en fait lu mu lu mu wax lu si gën a important moo ñu def lépp lu ñu mun ngir maladie bi bañ law bu baax a baax Sénégal ba hôpitaux yi ñu mun a antan malade yi loolu loolu moo tax ñu expliquer ko di expliquer nit yi nan la couvre-feu beeg confinement bi nu mu important we noonu lekk lañ ko mun expliquer soo leen xoolee graphique bi lan laa def dama jël tous les lundis depuis euh, mars début mars ba léegi soo leen xoolee lundi 2 mars lundi 2 mars euh, benn ka lañ amoon donc début mars ñu ngi amoon benn ka le 9 mars ñu ngi am 4 ka am benn guérison le 16 mars lundi toujours lundi 16 mars ñu am 24 27 cas ak 2 guérisons euh, lundi 23 ñu am 79 cas 8 guérisons tey tey bu may def vidéo bi tey le lundi 30 mars ñu ngi am 162 cas 28 guérisons léegi loolu man nag duma expert statisticien waaye man de am na lu ma ci jàngat lu ma ci jàngat mooy. nombre de cas yu ñu am yi moo ëpp fuuf nombre de guérison yi waaw loolu soo leen xoolee loolu moo tax professeur Seydi di alerte bu baax a baax soo leen xoolee graphique bi fii soo leen gisee nombre soo gisee nombre de de cas yi c'est exponentiel par rapport ak nombre des guéris yi léegi lan ñun lañ war a def lu ñu war a def lu gën moom mooy tey nombre de guéris yi courbe nombre de guéris yi yéeg dem ba fekk courbe nombre de cas yi ñoom ñaar daje te léegi pour ñoom ñaar ñu daje il faut que nombre de cas yi ji war wàññeeku su nombre de cas yi wàññeekoo nombre de guéris yi yokku ñaari courbe yi ñëw dajee fenn fi loolu moo tax lu gënoon mooy tey su ñu amee 162 cas de coronavirus am aussi 162 cas de guéri de de de nombre de guéri loolu moom mooy population bu wér moom moo tax confinement bu ñuy wax beeg euh, euh, couvre-feu yu ñuy wax yeeg loolu ral soo leen xalaatee bu baax c'est pour que nombre de cas yi wàññeeku nombre de guérisons yi yéeg loolu dong lay jël te loolu nag ngir ñu am ko il faut que nit yi respecter bu baax consigne yu leen jox yi Euh, nit yi toog seen kër yi bañ génn sauf su fekkee ne vraiment extrême urgence la ngay soog a génn ngeen raxas seen loxo yi bu baax a baax soo leen génnee dugg ngeen raxas seen loxo yi ak saabu bu baax a baax a baax couvre-feu bi ngeen respecté ko ngeen toog seen kër yi noo leen ko munee noo leen ko munee loolu rek moom mooy permettre tey nombre de cas yi du bëri nombre de cas yi wàññeeku parce que su fekkee nombre de cas yi dafa bëri bëri bëri bëri nombre de guérisons yi ba bañ yokk yenn yokk yi kon hôpital yi ñoo dul amati place te su fekkee ne hôpital yi amatuñu place su fekkee ne amatuñu lu ñuy jox nit yi ngir ñu nooyi ak machine yeeg yooyu fa la problème bi di commencer di tàmbale moom moo tax tey sama waxtaan bi gaaw parce que dama buggoon vraiment expliquer nit yi lu tax confinement bi important loolu moo tax tey ma def vidéo bi très très très rapidement vidéo bu gàtt la tey maa ngi ñaanaat nit yi bu baax a baax a baax Sénégal nañ leen respecté lépp li nga xamante ni tey gouvernement bi mu ngi koy def ngir nombre de cas wu coronavirus yi bañ bëri maa ngi leen di ñaan bu baax a baax na ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp respecté euh, maa ngi leen di ñaan tamit ci sama vidéo bu mel nii bi def na dinaa ko def ci Facebook bi dinaa ko def ci YouTube bi euh, partager leen ko ngir nit yi comprendre parce que benn instant dafa mel ni nit yi comprendre ñu des fois ndax lañ ñu war a yem suñu kër yi ndax lañ ñu war a confiner il faut ngeen partager vidéo yi nit yi gis euh, analyse yu mel nii ngir ngir aussi ñoom ñu comprendre la seen bopp que c'est important euh, nit yi yem seen kër yeeg yooyu maa ngi leen di remercier bu baax partager leen vidéo yi euh, man la woon Man Ndiaye yàlla nañu yàlla may suñu réew génn ci ci bu mu am benn jëya euh, que nombre de cas yeeg nombre de guéris yi dem ba nombre de guéris yi ëpp incha allah yàlla nañu yàlla may jàmm suñu réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah